برأني الباخي من الأمراض وكب من أنكر باعتراد لو شكوري على حياتي عبدا خديما فاز بالآيات أشكر شكر الذين شربوا من عزبي وللجنان خربوا حس حياة لا ترى لغيري mucjizatan baanat li husni xayri yajuudu lil jawaadu mil jiyaadi wasuulu li yakunu zan xiyaadi axyaani albaaxi bila imaata wala tanaazuin wala shamaata aataani albaaxi alkitaab alazama wala ulaaxi kulla man taazama anni jaza walidati wal walida xayran kasiran la yazalu xaalida nafaani bil mustafa al mushafa'i alayhi taslima wa nafa al anfa'i daaxilamiya ila shukuri man saxara lil xalqa baqaayi zaaman rabbiya maliki xalili wal habib وقد ما عني ضاعي الطبيب برعني من كل عيب ومرض وخاد لي صحة في كل غرض برئت من عيوب نفسي بالتجاه إلى الذي أبوابه لن ترتجى هو الكريم الأكرم المكرم واليمن لا يريم الكرم kon maa ngi sant yàlla man la Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly nekk député Assemblée nationale nekk taalibe Serigne Touba xam nga bisub saint moom fu mu jote rek fu mu mas a fekk si réew mi damay ñëw fekk si ko ndax dama fi am cër rawatina Serigne Sidi xamante ni mooy xalifa bi nekk sama waajur nekk sama sëriñ moo tax euh, ma jóge Dakar léegi nii war a del war a delluwaat léegi ndax ku ne xam na ni bis bi rek moo tax ma jóg li Serigne Abdoulaye liggéey ci yoonu Mouride bi mu nekkee Serigne Touba bi mu fi jógee Serigne Sidi liggéey liggéey kon comme man dama bokk si njaboot gi yoon def na ma ñëw fekk si barkeelu si ña fekkee li nga xamante ni mooy euh, lépp loo xamante ni yitte askanu la ma man koo mën a fekkee pour wax si li nga xamante ni moom laa si war def bi ma ñëwee waxtaan nan recevoir na ma si biir euh, ci biir man ak Serigne Moustapha bu Serigne Abdou Khader waxtaan nan waxtaan wu yàgg-yàgg euh, am na tamit ay ndigal yu ma jox ñaanal na ma xamal ma maanaam li ma nekk mooy dëgg nee na am naa pëstef comme ni ko sëriñ Mountakha am na ay liggéey yoo xamante ne war naa ko liggéey fii ci mbaar mi incha allah à soo wax naa ko pour jéem a xool nu may def ba salle bi yëpp ñu def mën mu sedd ko incha allah loolu lépp ma def ko addee sëriñ Abdou ko jaral jërëjëf merci incha allah. rafetlu ko ñëpp fonkoon ko taxawaayam ngir tamit euh, yéen a amoon ci ci yoon te def ci lépp loo xamante ni nekkoon na ci ay ci ay possibilité moo taxoon bis mel tamit mosuñ ko wuute dañu waxoon ne ñoo ne fi ñëw ziar ko euh, fëdeli ko lëre sàkk ci ay ñaan ci ci ci li nga xam ñu ngi ko yëngatu ci ci département Mbacké ñaan tamit président de la République yéen a ngi am ci réew mi yàlla jàppale ko ba moom na àggale lépp. indi ko sëñ si ay añ ñoo xam ne ñoo ngi fi teew waxtu tisbaar ginnaaw gi ñu sëlmee tisbaar ci jumaa ji ñu indi añ yi muy téeméeri ndab ak juróom benn fukk ceebu jën ngi ci ceebu ginaar ak ceebu yàpp bu ngoon jotee noonu lay indee xar yi ak li mu war a àndal lépp. ginnaaw takkusaan paate maa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla na yàlla guddalu fanam ci barke Seex Xaadim ak mboolem ñu àndal waaw añ daal maag Ibrahima Ndiaye ñoo fi ak déngaam ñun war a àndal ak ak wa innani an il azabi maasiri iza talawtu ayatan niltumuna min malikin mumalikin xat amana taslimu la yazalu akrama على الذي لي يودي كرما أبقى سلامي الذي لي خادا بدل شيء بردا فانخادا هدية مني إلى خير الورى صلى عليه من عدا وصورا